ci kanamu sénégalais bu ne ak foo mën a ñong kay adei. wax ci kanamu kilifa diiné yi ak partenaire sénégalais yi ni tey ni nii ci siège PRP man mi di Déthié Fall candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024 bu nu amee seen confiance taxawaay bu mat sëkk ci taxawaayu chef de d'état lanu bëgg am taxawaay bi nga xam ni dangay boole ñëpp yamale leen taxawaay bi nga xam ni doo beddi ñii jël ci attaqué ñii taxawaay bi nga xam ni day yokk jàmm yokk booloo taxawaay bi nga xam ni lépp luy ger lépp luy yàq di fi am mais taxawaay bi nga xam ni lépp luy autorité d'État donc ko donc daan ko assurer bu nu yàlla defee ngeen def ñu confiance sénégalais parce que lépp yéena xam leen ni tamit daanu doon président de la république buy delloo Sénégal li ko yàlla jox li yàlla jox sénégalais yi ci cër daan leen ko delloo ci taxawaay ndaxte yàgg naay wax ni ngay américain di français ak koo mën a doon foo mën a nekk dinaa la jaay ni man sénégalais la ak toute la fierté qu'il faut parce que jàpp naa ni amul ku gën a fier Sénégal sénégalais amul ku gën a digne sénégalais li am rek mooy wane ka nga doon te boo leen ma defee confiance ku nekk ci yéen ka ngeen doon fu ma taxawee dinaa ko matee sëkk ba ku ma jàkkaarloo ak man xam ni Sénégal yàlla def na fa lu baax di leen xamal ni boo leen ma defee confiance dinaa doon le chef suprême des armées jiite armée bi jiite gendarmerie bi jiite force de défense et de sécurité di leen gërëm ci seen taxawaay ci seeni mission yi nga xam ni ñoo ngi koy def partout ci sous-région bi di ko def ci àdduna bi ku nekk ràññee leen ci sommes de très grands professionnels et bu ma leen ko waxee mën nañ ma def na jaar ci seen loxo lu muy néew néew et fort officier yëpp xam nañ ko nga xam devise bi xel bu président de la république Sénégal def ma confiance xam leen Sénégal ci at yin koy téye ku nekk dina gis jéego yi muy def ndaxte lii nuy wax ni du lu nuy ñëw pour jàng lu ku nekk mën a dem vérifier la ci fenn ñu jot jaar industrie yu ma jot a jaar ñoo ngi fii nii ñëpp xam ko dem leen ngeen laaj fa nan lan fa taxawee ban fulla lan fa indi bi ñuy ñëw ñan lan fa fekkoon ak tey yi nii fan la loolu toll kon buñ leen ko waxee lu ñu xam la di profité ci occasion bi di gërëm di félicité parti bi yëpp ci taxawaay bi ñu jot a def biir réew ak bitim réew ci opération kaay bokk analyste yu bare wax nañ ko nee ñu PRP tey appareil politique bu mag la ku nekk mi ngi koy wax fu ne donc liggéey boobu nit ñi def ci suuf te boolewuñ ci coow lu bare mu yóbbu leen ci cinq 554 communes yëpp vous également ci pays diaspora Dylan di leen gërëm di également annoncer que nous, au mois de mai nous réunir 500 cadres